jërë ngeen jëf amit respectateur people 221 ñi sibut ñu ngi leen di nuyu di leen ziar baax a baax euh, di amaat ci ñëwaat fii ah, jàkkaarloowaat ak yéen waaye di ñaanal suñu kilifa di nekk suñu kilifaa day di ñaan réew mi Sénégal yàlla na suñu borom dolli jàmm euh, tey nag ñu ñëw jàkkaarloo ak sunu père kenn dootu ko présenté ci Sénégal waaye kenn dootu ko présenté ci làmb mu di père Adama Ngom ku ko xam-xam ko digganteem ak Balla Gaye 2 fas yéene ñëw waxtaan ak moom ci làmb ji père dañ lay bàyyi nga nuyoog ñi lay suivre. Euh, jërëjëf euh, ginnaaw bi ma sante yàlla julli ci nant bi sant sama ñaari waajur maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp surtout nag di la nuyu. Mhm, merci ñi nga xam ne yéen def déplacement dérangement ñëw. Mhm. pour bëgg ñu waxtaan. Mhm. ma leen di ñaanal jàmm. amiin di leen ñaanal yokkute. yàlla aar leen sàmm njaboot gi. di nuyu tamit nag sama yaay joo xam ne nii dafa sa si muy Aida Sow Diawara mhm. yàlla gën ko kàttanal di sama yaay ju mat yaay di gërëm Lat Diop mhm. directeur LONASE di président GFC xam nga bu yàggoo rek coupe du monde daf ma yóbbu coupe du monde ak sama groupe Ngomès ah demoon maa ngi koy sant di ko gërëm di nuyu géejawaay gépp nag di nuyu Sénégal gépp di nuyu monde entier Mhm. di ñaan jàmm ci Sénégal. amiin fi jàmm sax. allahumma euh, euh, fi may njëkkee père nan nga dundee defet bi <laughs> combat bi defet bi nan naka nga ko dundee. sant yàlla jaam ak bëgg-bëggam mais yàlla ak dogalam. Mhm. làmb la woon. Mhm. suñu intention moo nekkoon <clears throat> ñëw. bëre daan. waaye fekk na yàlla bind na ci aras. ne jour boobu Boy Niang lay jox ndam. Mm-hmm. ñu sante ko yàlla. Mm-hmm. ndax ñun kat su fekkee ne ñun ay jullit lañu. bu ñu xalaatee fi ñu jaar ci làmb ji. Mm-hmm. daan ay mbër yàlla bis boobu ñun la jox ndam. kon tey suñu xañee. jox Boy ñaa dañoo war a gëm yàlla. noonu rek laa ko dundee. ma ñëw ci préparation combat bi. combat bi préparation bi ah, métti woon na juróon na coow aussi. combat bi nan ngeen ko doon waajee. bon comme combat yi fi paase rek xam nga Balla moom ndaanaan la. Mhm. ni mu doon préparé combat yi fi paase noonu la doon préparé combat am ak Boy mhm. mais bii nag daf ci gën a raw. Mhm. Balla lépp loo xam ni su ko defee. mu nekk coono dina ci am ndam. Balla def na ko. jël na tamit lépp lu mu waroon def ci ay ñaan. pour yàlla may ko ndam. def na ko. waaye nag jaam ak pexeem yàlla ak dogalam. pour xamal la daal wax dëgg yàlla Balla sonn na ci trop. ci ci entraînement yi. Mhm. ci financement yi. Mhm. vraiment jëlal na combat bi au sérieux. Mhm. mais ñu seetlu Balla ay combat am souvent daan génn dem préparer ji ko extérieur combat bi mu lalu fii est-ce que ñàkkul ni dafa xeeb adversaire bi moo tax demul préparer comme ni mu daan préparer combat yi passé. non non xam nga la soo ko dee boo ko dee déglu ak chaque fois dinaan la lu sama staff wax. loolu laay def. Mhm. bi combat bi amee staff bi toog nañu. Mhm. xamal ko ne fii lañ bëgg nga entraîné ko. Mhm. mooy tegu ci baat. te wax dëgg yàlla. bi mu ko entraîné fii. gis nañ ci moom doole boo xam ni. ñun gëj nañ koo gis. xanaa kañ yàllaa ñëw rek. waaye wax dëgg yàlla. Euh, staff bi ñoo ko ne. fii ngay préparé. mu préparé ko fii nag. am ci jom am ci fulla am ci fayda. ba yàlla ñëw def li mu def. noon daal lañ ko dundee. bala maa ñëw ci combat bi damay ñëw ci open press bi open press bi mu mel ni ci jour boobu sax doon nga xaw a coow ak ñenn ci journaliste yi. ñu bari naan Adama Ngom dañ ko jàpp mystiquement parce que keroog open press bi par rapport ak niñ la daan xaaree ci yeneen open press yi. non pourtant nag man Balla open press bu mës a def bii passé ci laa gën a nekk. Mhm. seulement dañ deman ba benn moment géew bi xam nga kenn mënu ko téye soo xoolee sax ci biir open de presse bi Balla moo doon xàll. xam nga pour defal géew bi. mais dafa débordé woon. bu dee question mystique ñun ay géewal lañu. ñun dañuy tuus wax lu baax def lu neex. ñun defe naa ne pour ñu jàpp ñu loolu amul sens. xam nga mais man daal sama xalaat sentiruma loolu. waaw li ma sentir ko rek mooy. open de presse bi ña fa ëpp nañ doole. doo dégg sax son son sabar yi bu baax a baax. Mm-hmm. Euh, ndax nit ñu bëri te ña fa ñëwoon ñëpp dañoo xër ci ci ci ci Balla. Mm-hmm. mais man sentiruma ay affaire yu xam nga mystique affaire yooyu quoi. d' accord en tant que tambour major tout seul mbër tout seul mbër yomb na. bon yombul. Mm-hmm. parce que dafa am lu mu laaj. dafa laaj yow géwél bi nga préparé wu. mystiquement. même bu nekkul sax même bu nekkul mystiquement Euh, dafa laaj nga préparer wu mentalement. Mhm. xam nga ak physiquement xam nga euh, li gën a am solo nag mooy yàgg sa groupe ngeen am entente. dëgg la waaw moo tax may la noonu daal laa gisee daal. parce que li tax ma laaj la loolu des fois nga gis mbër di tuus nii keroog gis naa kon presse bi bi Balla Gaye di tuus sumi nañ benn yëre ñëw yëkkati la. nga teg ko ci suufu kii yooyu noonu yooyu noonu da ngeen koy préparer wala yow dañuy ñëw rek mu doon loo xam ne day exister. non dafa tombé rek. Hmm. dafa sol yére bi summi ko xelam jox ko mu ñëw ba ci man. Hmm. teg fa mbubb ma. Hmm. parce que xam na ne Balla. mën naa dama ngob. ni may sàmmee sama bopp. noonu laa koy sàmmee. mbubam mu teg foofu sama sama sama sama côté. xam na ne du ma jóg mu bàyyi ko fa. dëgg la te bi may jóg noonu la demee. Mhm. dama yëkkati mbubb mi. Mhm. teg ko ci loxo Baye Ndiaye. Mhm. waaw ma ñëw ci tuus mi ah. Euh, keroog ñu gis combat ba la passé fa laay ñëw bi nga tuusee mu neexoon xale yëpp salaan ko. combat bi nga ñëwaat créer leneen maa ngi koy fàttaliku doon gaynde moo ma gënal. doon mbote Mhm. loolu noonu loo inspiré wu ñëw teg ko sur la table la wala da nga ci waxtaan ak mbër mi ni ko lii laa bëgg a def parce que Balla Gaye tamit mbër mu mag la. par mhm. rapport ak mbër mu ndaw boo xam ne da ngay toog créer sa barke rek ni ko defal lii. non xam nga Balla euh, mooy làmb. te yàgg naa ko wax. Mhm. te Sénégal yi dund làmb. xam nañ ne Balla mooy làmb. moom ci boppam moom moo ne lii laa bëgg nga tëggal ma. Balla Gaye yaa ngi dégg. man tam ma daa dugal parole. mais Balla nit la koo xam ne nii day bëgg chaque combat am indi lu bees. Mhm. te yàllaa ko may dégg-dégg dégg-dégg bi mu am ci bëre moom la am ci rythme rythme boo ko tëggal. Mhm. moom la mën na ko fecc. dëgg la kon maa ngi koy sant di ko gërëm. dëgg la waaw gis na ne aussi tamit bi nga créé loolu keroog jour combat ba xam naa def na la surprise. Mhm. booy ñaar tamit ci bàkku bi daanaka indiwaat na ci affaire ru gaynde mu mel ni dañ la pirate. non du question pirate xam nga gaynde moom. Mm-hmm. kuñ ko tudd ci làmb ji. Mm-hmm. Ah, ci Balla Gaye nga ko gisee. Mm-hmm. parce que moom mooy la lion de Guédiawaye. xam nga génération ah, moo njëkk a nekk roi des arènes. moom Balla Gaye. ñëpp bàkk ko gaynde kon boo tëggee benn rythme tudde ko ne ko yaay gaynde c'est normal. te ñu dund làmb xam Balla Gaye xam na ne. loolu ma wax noonu ci Balla. loolu mooy jikkoom loolu moo nekk ci Balla. dëgg la waaw. tuusal tuusal mbër lan lay def ci mbër mi bakk ko. waaw xam nga tuusal mbër maanaam day day day day day yee mbër. mooy gonflé xam nga. Mhm. yow bi nga xasee bi nga commencé dugg ci làmb. dëgg la mas ngaa gis mbër mu ngemboo këram. ñëw ci stade bi ñëw rek sëgg bëre. musul am. Mhm. il mu tuus tuus boobu nag moo koy indiwaat ci làmb ji. Mhm. tuus boobu moo koy yee. xam nga nga kañ ko wax ko moom mooy kan. xam xamal ko ne àdduna mu ngi lay seetaan. lépp loo mën na nga ci def fulla ak fayda. maa ngi koy nuyu moom Balla. gàcce ngalaama. ba mu jël roi des arènes ñu bari xalaatuñu ko. ñu fi fekkoon të ñëpp mu tër leen. indi beneen lug ci biir làmb ji. kon Balla Gaye gàcce ngaalaama yow fu la neex jaaral làmb ji mi ngi sa loxo ñëpp xam na ne yaay làmb say supporter kenn ma merew la ñëpp a kontaan ci yow géejaway buñ leen fonkee wala ñu respecté leen ci làmb ji yàlla yow la yaa sagal géejaway yaa sagal Sénégal yaa sagal Casamance képp kuy sa sa fans kontaan na ci yow. Mhm. kon Balla gàcce ngaalaama. Mhm. ba ñëw ci ba tey ci tuus bi ah ñu gis keroog booy Niang bi muy tuus ñu bari sax après combat bi lañ koy doog seetlu que ni <coughs> ñu ci yoroon ay micro centrale di woy mën naa ci cité comme jabaru Cheikh mbay mhm. jabaru Cheikh Niang woy boobu mu doon woy Balla gay mu doon woyal Boy ñaa jël ay biteel di yëngal mu mel ni affaire bi dafa am genre complot. waaw xam nga comme gis nga ko. Mm-hmm. man mi gis naa ko. Mm-hmm. te noonu la ko ñeneen gisee. Mm-hmm. mais ànd ak yàlla rek moo neex. gis nga gis naa ko mu yor biteel di yëngal mais ñun ay géwal lañu. ñun dañoo war di wax lu baax. di rafetal. di jëf lu rafet. waaye làmb ji. jàppale su waree am dañoo war a boole ñëpp jàppale. ay micro central ak. ay ñooñu doon téye micro bi di woy ak. loolu ñëpp gis nañ ko mais jarul wax xam nga. li am am na ba pare. Balla Gaye yàlla def na ko roi des arènes Balla Gaye nee naa la roi bi ñuy xëccoo. moo ñëw ba këram ne ko Balla asalaamaaleykum maa ngi nii yaa ngi dégg. Balla téye ci loxoom. Balla amul lu muy lu muy lu muy lu muy ñàkk ci làmb mhm. teraanga bu mu am làmb moo ko may mhm. kon li nga wax ni gis nga ko man gis naa ko keneen gis na ko mais loolu nag est-ce yoon la woon aussi waa xam nga loolu waa CNG ñoom ñoo war a xoolaat seen bopp mhm. parce que am na loo xam ne ni sax ñoom da leen di takkal am na loo xam ne da leen di takkal te dafa am loo xam ni avant muy ñëwaat da koy teel rek réglé waaye nag yàlla baax na. Mhm. waaw yàlla baax na. Mhm. waaw mu am question boo xam ne nag maa koy laajal sama bopp. Mhm. avant mbër di sëgg. njaajaan jinne jinne xam sa kër te xamoo këram. loolu bàkk la boo xam ni dañ leen koy digal avant mbër mi di bëre. wala mbër bi buy lewaatoo wala bàkk boobu lan lay def ci mbër buy lewaatoo. njaajaan jinne doo xaar ba muy lewaatu moment bi mu taxawee di war a tuus yëkkati sangoor bi fa nga koy tëggale loolu wala mbaaru bukki waaye nag du mbër yëpp nga koy tëggal loolu ah. mbër moo gis dafa am bàq boo xam ni mooy njiglaayam mooy cosaanam mhm. moom la ay maamam xam nga mhm. doon kañoo mhm. bu laajee njaajaan jinne nga tëggal ko ko mhm. su laajee mbaaru bukki mhm. nga tëggal ko ko mhm. noonu lay demee quoi moment bu muy waaj a tuus waaw foofu nga koy tëggee ba tey damay ñëw ci ci ci ci biir géew bi ñu gis yeneen mbër yi parce que tamit nekkul ni damay wax ak Tambour Major rek parce que ku la xam-xam ni yaag Balla kay dem ngeen ba siqatoo leen entre mbër ak ki koy tëggal parce que yàgg ngeen nga doon peeram kon am na loo xam ne il fallait que ma laaj la ko boo xoolee ci biir géew bi gis nañ fa yeneen mbër. Mhm. ñoom rëg-rëg ñu ngi ñëw xam nga dugg ci biir géew bi ñu bari ñi ñooñ tamit dañoo bokkoon ci xam ne dañu doon sot Balla Gaye gis naa leen ñëpp gis na leen mais gis nga nit booy def da nga def loo xam ne ëllëg buñ la ko fayee doo yow combat bi du sa combat da ñëw rek ñu invité la am na foo war mhm. waaye nee naa la jour boobu dafa rax te li rax lépp nit ñi teg nañ ci seen bët. yàlla nag moo ànd ak ñoom moo tax. booy ñaa daan Balla Gaye mais mënoon nañoo def loolu lépp ñoom. te yàlla du ànd ak ñoom. su boobaa tamit ah ñoom nañ xam ne yàlla àndut ak ñoom. mais en tout cas li la bëgg a xamal daal mooy muy rëg-rëg moom xanaa ñaan na yàlla bëre ak Boy Niang parce que nag làmb ji ñoom ñoo koy mujjee. ñeneen duñ bëri. waaw ah. ñeneen duñ bëri. ah loolu nag ça dépend seen staff. Mhm. mais làmb comme sport la. ah te ñoom ñooy mayante xaalis. Mhm. man foog naa daal war nañu mën a bëri bu fekkee tamit jël ñu décision pour bëri tamit. ah ñu xam ne jël ñu décision pour bëri. d'accord mu ñëw ah. ci blessure bi. Balla Gaye bi nga koy tuusal. Euh, sentir nga ni dafa am blessure wala déet. Balla bi ma koy tuusal boobu amagul blessure Balla bi mu dugg ci stade bi amul blessure tuusal naa ko ba pare amul benn problème mais bi mu summeekoo dugg ci géew bi summeeku daf yaram nen bi mu génnaatee def échauffement foofu la amee blessure mais man yëguma ci woon dara ndax fi mu toogee woon ak man fi ma toogee woon dafa sore woon parce que ñu bari ñu ngi doon wax kon naan entraînement la gaañoo blessure bi daf ko indiwaale ci làmb ji. non Balla bu fekkoon dafa gaañoon entraînement ak li mu tuus nii yëpp kon du ko tuus. Mhm. mais man bu mu bu mu sumee ko ba def yaram leen ba génnaat. Mhm. def échauffement. Mhm. foofu la amee foofu la amee ñëw toggaat ci cumikaay bi. mais yëguma ci dara bi mu bëree ba daanu. Mhm. ma ñëw fekk ci biir géew bi. Mhm. foofu laa yëgee ne Balla dafa amoon dafa amoon blessure. d'accord waaw ma ñëw ci combat bi ah. Mhm. bala Gaye des fois ñu bari dañ koy xaw a mere ci li mu wax lay def. parce que boo xoolee ci combat bi Boy Niang waxoon na ko une minute ci première jàppante bi bala taxaw di calculer une minute mat mu sonk ko est-ce que ak fi mu toll tey war nay bëree euh, xeetu bëre yooyu noonu li ma la wax laay def. waa xam nga jukkoog jukkoog borom. ba ci biir pax. dëgg la xam nga Boy Niang moo taxaw publiquement mu ne Balla Gaye une minute laa la may. Mhm. ball Gaye ne ko ok. Mhm. waaye boo xoolee seen dernier face à face Balla Gaye da ko minute nga ma may dinaa taxaw xaar la su paasee ñëwoo foo foo nekk naa la fa fekk. Mhm. boo xoolee combat bi noonu la demee. Boy Niang fi mu taxaw taxaw. Balla may ko une minute ñëwul. te Balla xam nga ne Balla moom du tas de amateur. loolu jikkoom la. dëgg la xamul taxaw bañ a bëree. Mhm. xamul ay arrière. Mhm. xamul soo ñëwul du ma ñëw. Mhm. ba bi sible nag mu may ko une minute ah, boo ñaa ñëwul ci la Balla tibb suuf nag. dox ci kawam. d' accord waaw. d' accord après combat bi ñu bari ni Balla Gaye mënatul day bàyyi parce que la fi nekkoon nekkatu fi jeexal na ba ban analyse nga def ci loolu. non ñooñu seen xalaat la wax rek. mais gis nga ñooñu wax loolu. amu ci kenn koo xam ne nii mën nga xëy chaque jour jox Balla Gaye deux cent mille. te Balla teraanga yi mu am yëpp ci làmb la ko jëlee. dëgg la làmb deseelatul dara Balla Gaye. Mm-hmm. Balla mm-hmm. na doole ci làmb ji entraîné na ba sonn. Balla Gaye jegewul sax jeex. Mm-hmm. jeexal. bisu bis boobu yàlla moo Boy Niang mooy daan. Mhm. may na ko ndam yal na ko ndam li mais Balla Gaye mhm. ñu ko naan bàyyi làmb. Mhm. ñooñu dégluwuñ leen sax. waaw dégluwuñ leen. man daal li ma koy xamal mooy Balla na yokk entraînement yi rek. te xam nag làmb ji. ku nekk bañ bañ a daanu. bul takk ngemba. yàlla sàkkul ku daanu. dëgg la waaw. ñu koy félicité. man du ma ko encouragé Balla dama koy félicité. Mm-hmm. gaynde la. Mm-hmm. jàmbaar la. Mm-hmm. am na jom am na fulla. say supporters tey lan la gën a bëgg. waaw absence su absence su Baye Balla. gisoon ni du xaw a empêché Balla Gaye ci carrière am. non absence su Baye Balla absence su. Double Less père Double Less. na mais xam nga loolu nit day gëm yàlla. Balla xam na ne ñi yóbbu ñooñu duñu fi bàyyi ñun ñii. dëgg te nag ba ñu dem la warante ñoom lépp Balla def na ko. ndeysaan. bis nag même ñooñ bi ñu dund lan la ñu amoon ci Balla avant mu dugg ci géew bi ñu conseillé ko na ko defal lii papaam ñaanal ko. Mm-hmm. mais la ci biir géew ba Balla mooy jël décision. Mm-hmm. soo amee seetlu Baye Balla yal na ko yàlla yërëm. ak Père Douba Les yàlla jéggal leen seen i bàkkaar. amiin dama ma sa toog Baye Balla na ma ma ne ko ba mais Père. doo wax ak la mu ne ma jarul wax xam na lu muy def bu yàgg. Mhm. kon loolu dafa leer. Mhm. ñu ngi leen di ñaanal. Mhm. yàlla yërëm leen. fa ñu nekk gënal leen fi ñu jógee. allahumma amiin. ma ñëw ci après komba bi mu jur coow lu bari. Euh, damay njëkkee ci entre Guédiawaye coow li après mën naa ci cité ku ci mel ni Père jaw bi nga déglu ay waxam euh, nan la la def. jaw sama xarit jaw monument de Guédiawaye. jaw borom waalo gis nga maa ngi koy nuyu bu baax a baax. Mm-hmm. mais coowam ak Sa Thiès dama bëgg sénégalais ñu génn ci seen bopp. diggante baay la ak doom. gis nga jaw Sa Thiès moo ko gënal ay doomam. Balla Gaye moo ko gënal ay doomam. Mhm. jaw ngay ñëw ngay ñëw këram. suba ba ngoon Balla Gaye lay waxtaanee ak Sa Thiès. jaw man mii maa xam jaw lii mu wax ak Sa mu bëgg bu ci kenn dugg yoonu kenn nekku ci diggante baay la ak doom. mais diggante baay ak doom ñëpp jàpp ni bu doom dafee erreur baay war na koo woo ci nekk waxtaan ak moom mais pas di ko teg ci penc mi. waa léegi Sa xam boobu léegi tontuwul. Mhm. te du mës tontu. Mhm. kon xam nga ne Sa Thiès xam na ne jaww mi papaam la. Mhm. kon wax ji jeexul. yow man jaw xam na ne Sa Thiès ku am yar la. Sa Thiès du siggi xool nit. dëgg la Sa Thiès man mii rek man Adama Ngom su muy nuyu ñaar loxo la may nuyoo. jikkoom la ku baax la ku yaru. Mhm. jaw xam na loolu de lii nag message la woon rek. Mhm. xam nga bu doon jàll. parce que tamit ñu bari daanaka li tax sax ñu ko ci gën a mere mooy nee jaw moom heure bu VIP géejawaay daanoo rek jaw xalab leen. defoon na ko fii ci guy gi defaat na ko fi defaat ko fi bërki démb. noo xam nga nag Jaw même bu nekkul ay monument géej way Jaw dafa xam làmb. Mhm. man Adama Ngom heure bu làmb amee su ma ñëwee këram su ma ko nee loo loo loo gis si làmb ji lu ma ci wax bu arbitre damay gis loolu. Mhm. dafa xam làmb. Mhm. kon Jaw ñu ngi lay xamal ne yow yaay papay xale yi. yow yaay seen nijaay. yow yaay seen lépp say doom lañu bàyyi bàll bi muy dem yow la fi bàyyi sa diggante xale yi père Doubalees bi muy dem yow la fi bàyyi sa diggante xale sa taxaw sa diggante xale yi rafet na jaw xale yi continuer sa taxawaay Sa Thiès merewul la xam ne ne yaay baayam te du la mës a tontu kon jaw ñu ngi lay sant di la gërëm mais may wax sénégalais diggante jaw euh, ak euh, Sa Thiès yoonu kenn nekku ci nañ ci maanu. d'accord waaw. tey yaa ngi jàkkaarloog Balla gay xam naa foofu la ñuy jaaree tàggatoo ban message nga koy lancé yaa ngi jàkkaarloo moom mu lay suivre. Balla kontaan naa ci yow. Balla Gaye yam jom Balla gay yaa am fulla Balla Gaye kenn merewu la na xam ne géejaway buñ la jàppoon mil jàpp nañ la deux mille Balla Gaye yow monument nga géejaway yow lay sago koro ba nga wootee ca stade ba xale yëpp ñëw mhm. mag ñëpp ñëw sa tribune bi nga féete moo njëkk a fees bu Boy Niang dañ lay woon seen cofeel ci yow te du mës a dañ yaa leen njëkk a indil roi des arènes bu ñu naw bu ñu nawee géejaway yow la Balla Gaye bu ñu respecté géejaway ci làmb yow la Balla Gaye mhm. ma lay xamal ne génnal waxtaan ak say supporters xamal say supporters ne yow kontaan nga ci ñoom waaye ñoom kontaan nañ ci yow. Mhm. man de maay sa géwél bi ñu ànd léegi 2005 la xaw ma ci yow ñàkk fayda xaw ma ci yow ñàkk fulla combat boo ma sa jël sa ambition mooy daan. Mhm. sa diggante ak Boy Niang sa rakk la. Mhm. bëre ngeen ci fulla bëre ci jom yàlla nag moo yor ndam. jël na ndam li jox na ko Boy Niang. yàlla na ko ndam li jig. maa ngi koy félicité moom booy Niang waaye Balla na nga xam ne waxuma Guédiawaye de mais Sénégal monde monde ñëpp kontaan ci yow. maa ngi lay ñaana gudd fan. di la ñaanal wér. di ko ñaanal sa soxna buri yal na la yàlla defal jàmm. waaw. Eh, ana Balla dafa gàddaay wala mu ngi fi. non Balla maa ngi dégg gars yi naan dafa dem France. xaw ma Italie xaw ma Allemagne mais photo boobu ñu wane. mooy bi muy préparé ak bombardier. Ah. Balla mi ngi këram. Balla jomb na loolu. Balla moo mag loolu. li Balla def ci làmb képp kuy takk ngemb. Hmm. da ñaan yàlla roy ko. dëgg te Balla ku gëm yàlla la. Hmm. xam na ne yàlla mooy dogal mooy maye ndam jox na ko Boy Niang moo war ba ko booy Niang daanee mu ñëw fekki Boy ñaa ca plateau ba. daal di koy félicité kon Balla Gaye gàcce ngaalaam. Ah, jërëjëf waaw mu ngi noonu moo nekkoon sama invité tey xat na lool nag vraiment mais nangul nañu ko parce que tamit loolu c'est normal ñun ay doomam lañ euh, lan ngay tàggatoo ak ban message ngay lancé. mais di kontaan ci yéen. jërëjëf. ndax yéen damay ñaan yàlla rek. Mhm. seen site bi mhm. gën a yëkkatiku. allahumma ndax nag ay jeunes ngeen. Mhm. di liggéey. di ñaan ñi ci war a jàpp ci site yi. Mm-hmm. Mm-hmm. jàpp ci. jërëjëf. Euh, say rafet na. merci. wax dëgg yàlla son bi nice na. jërëjëf te image bi rafet na. jërëjëf ndax yàgg nañ ma wax loolu. Mm-hmm. kon maa leen di ñaanal. yàlla yokk leen. ba ngeen yëg ko. di gërëm. safu Balla Gaye di ko commencé ci Aziz Ndiaye. su ma nee Aziz nee naa Baye. nee naa Massata waaye Aziz géejawaay mënuñoo fay Aziz. supporteru Balla Gaye mënuñu fay Aziz. Aziz moo bëggal boppam Balla Gaye hmm. téye Balla Gaye lépp lu war ci moom mu di ko def. Hmm. te géejawaay ak supporteru Balla Gaye fépp fu mu mën a ne. Aziz xam na ne ku bëgg Balla Gaye ñooñu bëgg nañ la. Hmm. man Adama Ngom de maa ngi koy sant Aziz di ko hmm. gërëm. Hmm. gis naa nu mu jàppee Balla Gaye hmm. te ku jàpp Balla Gaye ñun nga jàpp. kon Aziz gàcce ngaaraama ngaalaama. di gërëm tamit Pape Mama Fall. doyen Pape Mama. bu baax mbër yëpp lay sonn. rawatina Balla Gaye kon Pape Mama yal na la yàlla fay. di gërëm Jaw Alioune Jaw mooy papay xale yi gis nga su làmb amee day takk ndigam ci biir stade bi. jaw yal na la yàlla fay. di gërëm buuse buuse xaritu Balla Gaye la. Balla Gaye moo bëggal boppam buuse. Mhm. buuse sa taxawaay rafet na ci làmb ji. yal na la yàlla fay. Mhm. di gërëm Lamine Golo. moom entraîneur la. Mhm. mais moog Balla Gaye dañu yàgg. te Lamine ku laal Balla Gaye laal ko. dëgg la Lamine jërëjëf. di nuyu tamit mbër yi nga xam ne ñoo ne ca école ba. seen taxawaay rafet na. Mhm. di nuyu supporters yi. Mhm. di leen wax ne mbër takk na ngemb di bëri ci làmb ji ba bàyyi làmb nekkul roi des arènes. Mhm. te yéen Balla Gaye ah génération moo njëkk a nekk roi des arènes. kon bala wàccoon na ak ay supporters am. Balla gàcce ngaalaama waaye supporter tamit gàcce ngaalaama. maa ngi ñaanal Balla Gaye jàmm di ko ñaanal supporters yi. di ñaan Sénégal yal na fi jàmm yàgg. di nuyu sama yaay ay Aïda Sow Diawara. Mhm. moo ma yóbbu Màkka. jox ma oto ak leneen ak leneen kon kooku mënuma ko fay. Mhm. di nuyu la Diop. Mhm. président Lonas kontaan naa ci moom man ak moom ba Qatar. kon maa ngi sant yàlla. di nuyu ñëpp di ñaan Sénégal yal na fi jàmm yàgg. allahumma amiin jërë ngeen jëf mu ngi noonu ah, moo nekkoon sunu invité tey nekk sunu père. ñu koy nuyu baax a baax vraiment jël nañ taam waaye ñu ngi jégalu baax a baax di leen jox yeneen di daje te sunu yeneen émission fii ci people 221 jërë ngeen jëf.